Ablaye Lo bu alxames nag ma seetaan alxames nag nga xam ne ñii di layal Sonko ñëpp mënuñoo lay dinaa ko lay lay yu juba juba yoo xam ne nii bu ñu fa jógee ñi xam ne maanaam gars yi dañ ñuy nax rek concours ak bi amut benn école buñ naan fii lañuy jàngalee njiitum réew amut gaa yi yëpp dañuy sóob hmm. yërëm naa nag ki jàpp ne gaa yi sóobuñu bam teekoo sóob Macky sax day na paate amul fenn fu ñuy jàngalee conseil de ministre amul fu ñuy jàngalee débat politique toog ci plateau sab xarit wéyoole nga ñëw toog dafa si yéene ne wéyoole wut amut de amut fenn hmm. man fii ne xam gi ma xam ne Ousmane Sonko daa dem ca euh, massage kat ba wóor na ma ne moom ndiggam méttiwut wóor na ma ne massage yóbbu ko fa woon ci loolu nag fii ne nii ci laa ko mën a raxase ba mu seet wecc te Basiiru sax moom fii ne daa deme daa mel ne daa gëm ne Sonko moom da doon da doon maase wujj Sonko maase maase wujj couvre-feu lañ tëj dëkk bi gaa yi mënatuñoo dem mbuur faju ji te couvre-feu bi day waaj a yàgg ñi daan làqu yu mos ñëpp dañ koy forcé gis nga Youssou Ndour barki démb toj le na toj le na bu subaa da nga dégg keneen ko toj le ndax man yu mi moom bu bëggee génn day booxu te gars yi mënatuñoo dem Maroc ndax dañoo toj frontières yi France dañoo toj seeni frontière mbuur gii ñi daal làqu di ko def bu neuf heures jotee xale bu jigéen bi mënatut to génn fii séminaire yi mënatut a nekk li nga mën mooy xaj-xajal xaj-xajal waa xam nga ne Sonko mu toog ba vingt et une heures taalub otoom moom jenn jëmmam jooju képp man dong man mii du ma dox guddi man képp di ànd moom dong taalub otoom dem dugg ci kër di seetuk jigéen sëñ bi salaamaaleykum sëñ Abdourahman man daal boo bëggee dégg dëgg lii may bëgg a wax moo fi nekk maanaam nag doon naa xaar nag ba papaaj nekk di ah, di audio ma mën a ma mën a tafu ci ginnaawam waaye comme nag xaar naa ko ñëwut ma ma jëngu ko rek waaye daal Ousmane Sonko moom li ngeen koy giiñ ci boppam ngeen war a taxawal xool ba xam moom la am déet comme moom daa nekkoon impôt et domaine képp Macky Sall dàqe ko ca injustice génne ko fa ñu ko ñu di ko farale Macky ci cuuneem lay tabax Ousmane sonk képp di ko xeex muy jéggi obstacle yi waaye sonk moom maanaam man damaa gëm ni ku dul Adama Baro fii ci Afrique sonk maanaam Sonko gënu laa yeewu Adama Baro daal laa xam ne moom Sonko moom buñ ko faroon mooy tane Adama Baro waaye ñi def ko gën a intelligent te lii da ko wane Sonko moom damaa xam ne ma koy xool yàgg da xam ne kii maanaam ku ñëwoon ne ko budget Sénégal baa ngi nii avion baa ngi nii réew maa ngi nii yéegal nga léegi yaa moom réew mi maanaam bu waree avion bi fu mu jëm Sonko nga xam ne Gàmbi doo dong xamu fa dara maanaam moom daa yeewut moom wax dëgg yàlla ñàkk a yeewu nag moo indi lii. Sonko benn yoon la mas a dugg ci pale ci àdduna ci àdduna muy palais Dakar bii mooy keroog coronavirus bi te gis nga ko ba mu fay dem histoire Ousmane Sonko bis bi ma ko gis mu sol li gën a seer ci àdduna mooy keroog bi ñu koy witee pale nga xam ne maanaam lu mag la doon def ci moom daa ñëwut euh, Sonko naa man mosumaa gis mu benn président ci àdduna amul benn pale bu mës a dugg ci àdduna bi tamit kooku daa tëju xel mi xel xel mi moo ñur wax dëgg yàlla noo ko tooñ nag ndax fii la nekkoon moom li mu xam mooy liggéey bu weer dee mu fayeeku nun nag ñoo fii nekk di jay nit di jay nit gis nga ab sëriñ moom man nga koy jay ndax li seen contrat yow mal xëyaam la te yowmal xiyaam moom bu fa daray leer rek moom ak see guñ fa waaye fii moom looy chargé nit naan ko yaa fi ne yaa fi ne na fekk mu man ko yow koo xam ne candidat boo xam ne yow nee la damay dim làkk wi ñuy jàng dama koy sensé xaalis bi ñuy yor CEDEAO France ah système bi système judiciaire lu nekk danaa ko laal digéen de wóor na yàlla aarama baro daal moom laa xam ne mooy ndaare moom président yi Sonko ci doon topp moom heureusement nag